en fait boo liiree livre bi on se rend compte que euh, bind nga ko ba ba mu pare. Mhm. ngay soog a rencontrer euh, Aminata Touré. Ouais. contrairement à ce que peut-être lu ñuy lu lu ñu gis. Mhm. par rapport ak ñu bëri ñu bind si nit. mais mais ça se fait hein. Euh, bëri na. Mhm. bëri na mais ce que je veux dire par là c'est c'est avant de de poser ma question moom laa lay expliquer pour que nga ma mën a expliquer poser sama question mooy. mm euh, tout récemment il y a il yoo xam ne bind nañu ci ay candidats. Mm-hmm. Euh, te gis nañu manière bi ñu ko defee. Mm-hmm. Euh, ça n'a rien yow daanaka un mois après. bi nga avant ngay boucler. Mm-hmm. mais fekk nga bind ba pare. si nga quand on se fie au à ce qui si nga tase ak euh, Maïmouna Touré donc t'avais déjà. Euh, écrit, le, livre ngay soog a tase pour la première fois. Mhm. Euh, ma question est de savoir. Euh, déjà ñaari question la am par rapport à sa mooy euh, première question bi euh, lan moo lan nekk réaction par rapport ak euh, livre bi le contenu est-ce que elle a eu des objections par rapport a yooyu noonu bi ngeen échangé. Mhm. comment elle l'a apprécié deuxième kii bi mooy pourquoi nga nga choisir bind ba pare. Mhm. soog a dem rencontrer ko. Mhm. alors que mënoon nga tu avais la possibilité peut-être. dès le début des premières pages nga dem rencontrer ko est-ce que c'était une manière pour yow de montrer en fait. le le travail scientifique boo xam ne moom nga bëggoon mettre au devant balaa ñu ñu lay ñëw dugal ci dóorkat yi parce que ñu bëri dañuy bind parce que y a les élections ouais. et les candidates et donc est-ce que y ça aussi mm-hmm. euh, tout tous ces calculs là bokk na ci li la c'est bien c'est bien que yow posé la question parce que bon comme bon comme ni nga ko waxee d'habitude fii euh, s'il y a des journalistes qui écrivent bon ça être des livres recommandés ouais. ça être des livres guidés téléguidés sa peut être des livres yu nga xamante am na concertation ngeen tënku ci li ngay bind. Mhm. peut-être su ma ko rencontré avant may bind peut-être noonu lay demee moom mu may nettali parce que risque bi nga rencontré nit euh, koo xam da ngay bind si moom moom mooy dina la wax loo xamante ne. moom la ñëpp bëgg a dégg loolu mooy loolu mooy wax ci mais man par exemple j'ai pas fait ça comme Kajoor lu mu ko waxee dama dem déglu yeneen nit yoo xamante ni peut-être ay at ñoo pas peut-être ça ay adversaire am la ñoo xamante ni bëgguñu ko sa gis mm-hmm. euh, dem ci ñu nga xamante ni xam nañ ko bu baax su sa sa famille ses proches et tout pour laaj leen euh, objectif bi moom mooy pour avoir la distance oui. un peu entre li nga xamante ne moom la ñu moom mooy la pratique sooy bind si nit nga xam ko bu baax et puis beneen bi moom mooy montrer au lecteur que man je la connaissais pas parce que j'avais j'avais euh, je voulais utiliser euh, processus boobu pour wan euh, pour wan li nga xamante ni ñooy lire que man xaw ko. Mhm. def ko avant propos que ñëpp xam parce que pour pour pour ki kiy lire moo confiance parce que am nañu livres yoo xamante la plupart surtout sur les politiques d'habitude ce sont des livres et puis pour confirmer aussi yenn yenn infos yi nga xamante boo amoon naa ko par ci mais bon mais c'est une bonne question boo xamante ne bon ça permet de clarifier. Mhm. que euh, bon loolu moo ne ma dama bëggoon wane ni rek bon c'était la première fois ma toog ak moom c'était la première fois euh, ñu wax ko bien que bu ma doon couvrir loolu naa ko gis ay conférence de presse mais loolu ça veut dire. Mm. mais ma toog ak moom c'était la première fois euh, bi ma paree bind bind livre. quelle a moo tax nga intéressé aussi man bon. parce qu'il y a des parties quand même euh, qui sont pas. Mm. euh, ou tu tu lui caresses pas dans dans ouais, le sens non, du mais, poids. Non mais ça c'est ça ça c'est ça c'est normal mmh. parce que tu peux pas donc, faire un livre bon, en disant que bon elle est belle, elle est jolie, voilà. non. Il donc, faut euh, dire comment est-ce qu'elle a apprécié ça quoi euh, Non non ça. non non pour après la lecture. non après bon non après parce que bon moi je lui ai envoyé un message Euh, keroog mooy jour bu ñu ko arrêté avant ñu koy arrêté après mu ne bon ma parce que dama ko envoyé ndax li ndax reçu recevoir nga livre bi mu ne bon recevoir ko mais avec les tensions politiques là bon dina ko lire bon peut après dina ko revenir. d'accord mais mais mais peut être je ne sais pas yokk Kajoor si nu mu tout à parce que aussi euh, lan moo tax moom mooy. soo xoolee femme politique yi depuis 60 boobu l'histoire politique Sénégal commencé wul 60 mais comme la ñu am indépendance depuis 60 Caroline Faye euh, ay Aram Dieng ay Ndioro Ndiaye moom moo si nekk koo xamante ne. Mhm. Euh, fu mu agsi nii. Mame Madior Boye nekkoon na premier ministre mais Mame Madior Boye comme je l'ai dit tout à l'heure elle moom moo fi moom moo fi njëkk moom moo fi njëkk a agsi loolu bokk na et puis personne n'a jamais écrit sur elle boo ce qui est avantage. Mhm. wala chercheur wala ñeneen ñi nga xam dañ ko bëgg a xam boobu mën nañ dem. Euh,